bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur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 julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye duñu dañ di ñaan borom bi tabaraka wa taala ngir mu dottil ñu xéewal ya nekk fa moom waaye bokk na ci xéewal yooyu waxtu su néew ci ginnaaw lañu jóge ko jëfandiko ci xéewal ya mu doomu aadama yi muy xéewalu nelaw waaye yow jullit ba doon jëfandikoo xéewalu yàlla wu ka yàlla doyloo ci xeet wi ka yàlla doyloo ci jaamam ji di rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo lay wax ne gannaaw bi nga jëfandikoo xéewalu yàlla wu di nelaw ana lan nga war a delloo yalla njukkal ana noo ko war a sante ba xam da nga war a sante yàlla ci fottasu ba xam da nga war a sant yàlla ci reyal ko ay gàtt walla ba xam dafa am neneen noo ko war a sante waaye ke yàlla xamloo xam-xam bu kenn xamul di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo la baaxee yow jullit bi yenentu nee na la bu la yàlla xéewale ba nga jëfandikoo xéewal bam la xéewalal mu doon xéewalu nelaw boo jógee ko ci nelaw woowu nii nga war a sante yàlla na la ko yonentu bi jàngale mu nekk azkaaru istiqaaza min annawm baati ya nga war a tudd jamono bu la yàlla delloowee sa ruux nga ximiliku yeew ci nelaw boobu la yàlla xéewalal ba nga di jëfandikoo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la ne boo noppee ci nelaw woowu na nga ne alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak ci njaboot la ñaan bi di tekki mooy rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa adka taslima moo lay baaxee yow jullit bi mu ne la bu la yàlla xéewalale xéewal ju toll ni nelaw boobu nga doon nelaw de boo ci noppee la nga war a ñaan yàlla la nga war a tudd nga sante ko sa borom moo ne da nga war a wax ne alhamdulillah mboolem xeetu cant yu mataley alhamdulillah mboolem xeetu cant yu kawe ñeel nañu yàlla ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baada ma amaatana gannaaw bu namee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla lañuy dellu bu ñu suubu ci nelaw dëggantaan te mooy dee kon képp ku fi yàlla jële ci moom yàlla ngay dellu waaye képp ku yàlla nama nga continue dund bi mooy kalay delloo sa ruux su ko defee nga continuer sa dund bi ba keroog àpp ba mu dexalantik yow yal na àpp sore waaye dawlu yenn yàlla yërëm am na ñu ñu fanaa la démb ci guddi yàlla dogal ñooñu dañoo wéy di nelaw bi suñu jonn yàlla ji di tey yal leen yàlla yërëm yal na arjana doon seen dallukaay amin ya rabbal mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi waxtaan ak yéen lenn ci xéewalu yàlla yooyu di xéewalu ndox ba keroog ñu tollook yéen ci xéewal ba yàlla xéewalal doomu aadama te mooy appareil ba nekk ci yaramam te mooy xol waaye tey ji ñu fas yéene leen dégtal beneen tegtal beneen joxoñ ba ñu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa joxoñal ndax moom la yàlla wax ne yónni bi ma la du dara lu dul nga doon yërmande ñeel mbindaafoo ni moo tax mu ne ko ci aaya ba nekk ci suratul anbiya yàlla ne yonent bi ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni bu ma la du dara la tax nga doon sama yónanti dara taxu ko dara warulu ko ngir nga doon yërmande ñeel sama mbindaafoo ni kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ma yàlla yónni te mu jox ko risaala jox ko message u nubuwa ak message u risaala message u yonent message u nubuwa lam kay dee ngir mu partager ko ngir mu partager ko ci jaamu yàlla yi kooku mooy ar rasul mustapha sallallahu alayhi bokk na ci limu mu partagé jëmale ko ci askanam ci xeetam mooy xadis bañ leen bëgg jàngal nii su ko defee yonent bi tegtal fa tegtal bu mucc ayib waaye yow mi doon julit yow mi gëm yàlla topp njeexintalu yonent bi ak tegtalaam yow yaa ci am particularité boo xamante ne keneen ku dul yow amu ko ci la yonent bi joxoon ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu yombalal ñu ñu mën koo faram fàcce comme nu mu nekkee ci xadis bi inchaa allah amin ya rabbal alamin qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sharaful mu'min salaatuhu billeyl wa izzuhu isti naa'uhu amma fi aydi naas saxiixul jaamia mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi wa azka taslima moo ñu ne ci kàddoom yu sell ñi ci kàddoom yu matale yi mu duñu yan méthode la jullit bi di war a dëkkee ba mu doon ku tedd ci askan ba muy dund waaye ana lan la war a nekkee ba mu doon ku doylu ci askan ba muy dund ki bi nga xam tegtal ya yonent bi joxe ci xadis bi nang ñu topp ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji Rewmi FM 97 point 5 su ko defee ñu bokk taataan la fi yonent bi joxoñ sallallahu alayhi wa ndax moo ne keroog ci xajjatul widaa hal ballagt nee na ba xam jottali naa message ba ma yàlla jox ngir ma partager kook sama xeet bu di ko répété sahaba ya fa taxawoon ridwanullahi alayhim ajmain ñu naan ko nga yonent bi daldi jokkar bi baaraamam ju tedd woowu ci kaw ne kon buur yàlla nanga nga seede ne allahuma fashhid buur yàlla na nga seede ne kon jottali naa message ba ma jox ngir ma war ko partager ak sama xeet lii lañ leen bëgg a digtal nii bokk na ci la yonent bi partager jëmale ko ci xeet wi sallallahu alayhi wa moo tax képp ku dem ziyaare béréb ba mu nekk nga ne ko assalaamu aleyka ya rasulullah wala nga ne ko assalaatu wassalaamu aleyka ya nabiyallah qad ballagta risalata wa addalta al amaana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi xatta ataaka al yaqin sallallahu alayhi wa sallam ne ko wassalaatu wassalaamu alayka ya rasulallah yal na jàmmi yàlla nekk ci yow ak mucc xat balaxta risalata maa ngi seede na ca dëgg-dëgg-dëgg jottale nga message bala yàlla jox waaye ndenkaane kóolute wala yàlla confier matale nga ko waaye nag euh, laye nga biir sa xeet xamloo nga leen lépp lu leen di njëriñ waaye leeralal nga leen tamit lépp lu leen di lor waaye nag takk nga say bagaas tekk nga say ndigg xeex nga jixaat nga xare nga ba keroog dëgg taxaw wala ba keroog yàlla jëlee la ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa sallam yal ko yàlla fa yàlla sang bi moo ñu mu'min teddaange ka gëm yàlla sharaful mu'min teddaange onooru ajigom yàlla mu ngi ci salaatuhu bi julli ba muy julli ci guddi waaye nag mu ne ñu wa izzuhu kaweem ak onooram ak teddaangeem mooy istighanahu amma fi aydi nnaas mu jaambure ci la nekk ci loxo nit ñi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi nañu si maanaa xadis bi teddaange ki gëm yàlla mu ngi aju ci julli guddi ba muy julli ci guddi fu kenn gisul fu ko kenn yëgul waaw yow mi di jullit dangaa bëgg teddaange raccourci bu gaawaa ngi boo ñu mayee nopp ci waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi ñu daldi di la laayee biir la yenentu bi ne foofu la jullit bi war a fàggoo te dàngeem fii ci dundu àddina bi mooy ne lu neexa jëfe la ci ñenn ñi waaye lu jafe la tamit ci ñenn ñi ci ku mu nekk lu yomb mooy ka respecté waxtu yu julli farata yi kooku buñ ko ne na nga jóg guddi julli ñaari rakka pendant un mois da koy boole ci agendaam dakoy boole ci programme am système de vie ba muy dund te ci boole julli guddi kooku lañu wax ne julli guddi ci kooku la yombe ci kum jafe nag kooku mooy koo xamante ne waxtuy yu waxtu juri juróomi waxu ci dara bu koy def tamit da koy këpp këppaar kooku boo ko ne julli guddi danaan lay farata lay def leneen lu ci nekk mënuma ko point kon yonent bi alayhi wa nañu sharaful mu'min teddaangi julit sharaful mu'min honoru julit sharaful mu'min kawe ba julit bi di sàkku ngir mu doon ko du ci fenn la ko mun a amee lu salaatu salaatuhu bil julli bu muy julli ci guddi ñu ne julli guddi nag naa fekk du ko man ndax ku koy def du wonew toq naa fekk nekkul ci xolam parce que yaa ngi julli kenn yëgu yaa ngi dexalanteeg sa boroom kenn gisu doo jàng ci kaw takbiraat ya ngay wax doo ko wax ci kaw xatta ki la yàlla booleel ngeen bokk dëkk benn néeg ah kooku sax du xam la ngay def ci guddi xeetu nit yey jóg guddi di julli di deyanteeg seen boroom ci guddi fu kenn jigul fu kenn gisul gaañe kooku la yenentu bi wax ne kooku moy sàkku la tax mu doon ki tedd fa yàlla moo tax mu ne sharaful mu'min te daange way gom yàlla mu ngi ci salaatuhu bi leyl julli ba muy julli ci guddi kon képp ku bugg fa yàlla del saxoo di julli guddi ay naafila moo xam ñaari rakkal ñeenti rakkal ala kulli xaal lu ci mën na nekk sa programme bés bi na nekk ci sa programme guddi yi su ko defee nga toog seet ba xam dinga am teddaange ba yonentu bi dig ne teraanga jullit bi mu ngi nekk ci julli ba muy julli ci guddi ñu julli guddi nag naafila lañ ci jublu waaw timis ak gée moom la def ci julli guddi waaye xaaju guddi njëlbeenu xaaju guddi digg guddeeg njeexintalu waxtu guddi bu mujj bi waaw loolu yëpp ki fa julli ay naafila la ndax kenn du julli farata waxtu woowu tey waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mun ñëw wa izzuhu bokk na ci la tax mu doon ku kawe wa izzuhu bokk na la tax mu doon ci am palaas bu kawe fa yàlla istighana uhu amma fi ay dinnaas na doylu na jàmbure na fegu ci la nekk ci loxo nit ñi na bañ a ñaan na bañ a leb na bañ a wax nit ñi soxlam na bañ a dugg ci la nga xamante ne islaam danga ko ngay tappale nit ñi ngir am seeni alal ngay wor nit ñi ngir am seeni alal yow daal yaa ngeeg li ne gàññi sa loxo waaye foqale ak bëgge ak tiit dab na la ba la nekk ci loxo nit ñi xàmmewuloo ci lu ci bërik lu ci tuuti ku fàtte béréb yëfam ba ñëwee di ko fa fekk te amaana boo ko fa jiitoo fa lay jaaree tàbbi géej dootoo ko gis kooku dootul gis loolu muy wër ndax yaa jaar xeetu jikko yooyu yonent bi neena day xañ nit mu am palaas bu kawe fa yàlla ndax doyloowu loolu la yàlla séddale waaye ngi bëgg la ci loxo nit ñi noo ko mun a amee manees nañoo jëlee komanteer bu ndaw ci wa izzuhu taraanga ba muy am fa yàlla mooy istighnaa'uhu amma fi aydi nnaas na doylu la ko yàlla séddale mu jàmbure ci lane ci loxo nit ñi mënees nañ ci déggee ne am na ñoo xamante ne pour ñu am la ci nit ñi il faut ñu comporté woo comportement ba dinañu xaj dinañu nangoo dugg dinañu nangoo xaj-xajloo ci kuréel ba ñu bëgg dugg su ko defee bu dee comportement moo leen ci tax a ñu comporté woo noonu bu dee melokaan la ñu meloo noonu ngir la nekk ci waa kuréel woowu ñu mën si jot kon loolu xëytu foqale la xeetu raccourci la ba nit ñi di jaar ci jamono ji ngir am li ci loxo nit ñi fekk loolu nga mel du noonu mooy sa image dëggintaan fekk noonu ngay waxee du noonu mooy sa image dëggintaan xanaa dafa fekk ne rekk danga bëgg sóobu ci kuréel woowu ngir am la fa nekk ci xeetu koom-koom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam teraanga jullit fa yàlla palaas bu kawe fa yàlla bu ko jullit bi bëggee fàggu na maandu na jaambure na doyloo la ko yàlla séddale waaye mu maandu na doyloo la nekk ci loxo nit ñi bu mu kenn bu mu wor kenn bu mu tàppale kenn bu mu wor bu mu bu digganteem ak ki waaye bum fi nekk di nax nit ñi di jël seen alal du dul ci seen teyu bakkan kooku de bu fekkente ne melowut melokaan wi ni na yàlla suñu borom tabaraka wa taala la yenentu bi ne buur yàlla dina ko tabal place bu kawe fa moom yan nañu yàlla boole meñu dégg ak topp la xadis wundu yan nañu ko yalla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci daara ji su ko defee keroog xam ngeen ne ñu ngi leen doon waxtaanal la nga xamante ne dafa bokk ci la buur yàlla tabaraka wa ne mooy buur bay wàccee ndox ci kaw asamaan waaye mu nekk euh, moment boo nga xamante ne mooy dogal lu ko soob ci ndox boobu muy wàccee ci kaw asamaan moo tax buñ demee xool ci suratul ibrahim dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala mu duñu wax ne bokk na ci xéewal bi nga xamante ne man yàlla maa koy wàccee ci kaw asamaan si waaye mu nekk ndox taw bi nga xamante Ah, fa ngeen di war a mën a góobe lépp loo xamante ne moom ngeen di béy mu doon ay meññeef yi nga xamante ne ndoxu taw moo koy meññaloo su ko defee mu doon njëriñ ba ngeen di njëriñu seen dund ñii di jaay seeni bos ñii di jëfandikoo seeni bos mu doon njëriñ bi nga xamante ne ci seen askan lay dellu su ko defee mu doon xéewal boo xamante ne mooy la ndox taw di wàccee mu doon njëriñ ñeel kon yow mi defe ne ndoxu taw day wàcce ngir nit ñi buur yàlla nee na la loolu du objectif bi moo tax mun ne ñu ci sotul ibrahim allahu yàlla alladi mooy buur bi nga xamante ne xalaqa moo bind asamawaati juróom-ñaari asamaan yàlla tiim ci kaw wal ard ak juróom-ñaari suuf ba nekk ci seen ron ngeen di ci dox ngeen di ci tabax ngeen di ci bay ngeen di ci def seeni aajo wa anzala mooy buur bay wàcce mina sama i ci kaw asamaan si maa an ndox fa bi bihi mu di génnee ci ndox boobu mina thamaraati ay fur ay meññeef risqan lakum mu doon xéewal ñeel leen wa saxara mooy ki leen tàggatal lakum ñeel leen alfulka ay gaal ay bato ay kargo li tajiriya ngir ñuy daw fil baxri ci ndox wi fil baxri ci géej gi bi amrihi ci ndigalu yàlla lay amee de wa saxara ba léegi moo leen tàggatal lakom ñeel leen al anhaaru ay dex mbokk yi lii dadi ay xéewal ya nga xamante ni keneen ku dul ci yàlla amul kenn nag ko mën a defal du scientifique du philosophe du buxaaba du kat du kenn waaw yàlla fii matériel yum fi lim nii wallahi buñ ko doon jox scientifique yeeg buxaaba yeeg marabu yeeg ñoom seen pour ñu defal ñu ko dinañ ci lot na xamuñu ko sax ba ko def philosophie yeeg seen garaaw garaaw lu beeg waaw seen melokaan yeeg ñi tiitaroo lii dara lañ ci munut dara lañ ci munut waaw kon ki lii moo tax mu ne ñu moo ñu defal lii yàlla moo ñu ne yàlla mooy ki nga xamante ne mooy buur bi nga xamante ne moo leen bindal juróom-ñaari asamaan mu ne ci kaw mu bindal leen juróom-ñaari suuf ngeen di si faccani aajo ngeen di si tabax di si xotti ay yoon di si béy di si def lu ne waaye nag ah moo ñu ne nag mooy wàcce ci kaw asamaan si ndox ndox boobu noonu mu di si génnee ay meññeef ay fruits waaw fruits yi di ko jaay fruits yi di ko jëfandikoo mu doon wërsëg baleen yàlla wërsëgal kon sama waay yow mi ngi defe ne ndoxu taw la tax yàlla di ko wàcce ngir lor nit ñi la déedéet loolu day am ci ndogalu yàlla ñi loru ci ndoxu taw bi ñu leen di ñaanal yàlla yal na leen ko yàlla remplacer xol bu fiix yal na leen yàlla génne ci ndox bi waaye yal na yàlla dogal euh, ñu yore autorité yi ak ñu yore barke ñu yàlla dënk as ñu tabaxal leen foo xamante ne fa la ñu war a mën a dëkk su ko defee ñu ànd seen sutura ak seen dignité yàlla mën na ko sañ na ko yan na leen yàlla pikiir virus bi ni mel ñu tabaxal ña ci ndox wi ay dëkkuwaay yoo xamante ne dinañ ca waroon suturloo ak seeni njaboot amin yaa rabbal waaye ndoxu taw sabab ba tax yàlla di ko wàcce mooy fa axraja bihi min athamarati rizqan lakum yàlla buur bi nee na ndoxu taw bi tawee ba pare tool yi daal naat tool yi daal di meññ yàlla génnee ci ndoxu taw boobu ay fruits ay meññeef yi nga xamante ne wërsëg lay doon ñeel leen yéen doomu aadama yi kon ba léegi bokk na ci labuur buur yàlla tàggatal doomu aadama bi mooy wa saxara lakumul fulka pour yàlla moo leen tàggatal ay gaal ay bato ak ay cargo yoo xamante ne li taajiriya fil bahar ngir ñuy daw di xuus ci wiir géej gi ñuy andi ay marchandise ay bagaas ay conteneur kontineer ñu leen jëlee ci fu sore ñu tëmb ci ndox bi ndox bi di xuus ak ñoom wala gaal yi bato yi ñuy xuus ci biir ndox bi su ko defee ñu jógee ko fu sori foofee ñu daldi di teere fañ fañ fa ngeen bugg ngir ñu teere foofu su ko defee commerçant bi daldi génnee génne am la fa nekk mu teg ko ci marché bi commerce bi daal di jolli boo demee marché jënd la nga bëgg a jënd boo demee fu ñuy jaayee la bateau bi andi ci ay conteneur la conteneur bi yëpp ci ay bagage yàlla ne man maa leen tàggatal loolee ngeen yëpp seeni bagage ci seeni conteneur conteneur bi xuusandeg moom ñuy nuyu mboolem transitaire ya nekk poor ñu nga xamante ne ñu taxawee bagage yooyu ak conteneur yooyu yal na leen yàlla fay di suñu nuyu suñu mbokk di El Hadj Omar Cissé El Hadj ñu lay nuyu depuis cité Soprim ñu ngi ko naan fa jazakumullahu xayran wa ahsana allahu ilayk ñoom dañoo bokk ci ay transitaires yi nga xamante ne macha allah yal na leen yàlla fay kon mu doon ay xéwal yi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa moo man maa leen tàggatal ay gaal ay bato wa saxara lakumul fulk maa leen tàggatal ay bato nga xamante ne li tajriya fil bahri bi amrihi ñooy xuus si biir géej gi ñooy xuus si biir ndox mi ci ndigalu yàlla nag lañ koy defee de waaw yàlla moo leen di téye ci kattanam ak ci doolem ak ci coobareem subhaanahu wa taala ñu ko fu sori léegi-léegi nga gis capitaine bu saalit léegi-léegi nga gis navigateur yu saalit nga xamante ne dañuy saalit waaw ndax géej gi ni muy mel ak bato bi wallahi léegi-léegi nga gis ñu croix les bras taxaw di xool nag waaw yàlla yow rek yaa ñu soo mën a génne ko defee yàlla ne di tajriya fil bahri amri yi ngir gaal yi bato yi ñuy xuus ci biir ndox bi ci ndigalu yàlla bur yàlla ne wa saxara lakumul anhaar bur yàlla ne ba léegi maa leen tàggatal la nga xamante ne mooy ay sewnde ay dex yi nga xamante ne ku ko weddi xoolal documentaire yi ku ko weddi demal Kédougou nga xool montagne ya fa nekk ndox bi nu muy ballee ci xeer muy wàcc fu sore kaw montagne bi la ndox bi di balle muy wàcc waaw di walangaan ci ay dex su ko defee dex woowu ñu nit ñu di si jëfandikoo ku ko weddi demal xool lac de nga xamante ne ñay séddale ndox ñoo ñu ñoo dem béréb boobee daal di fa jëfandikoo lay muuc ndox bi di ko manq ñu di ko séddale ci kër yeeg ci liggéeyukaay ba ñépp di si jot kon dex boobu ku ko def bërëb boobee ndox bu neex ba fa nekk ki ko fa def yàlla moo ñu ko tàggatal subhaanahu wa taala kon li yëpp dafa bokk ci xéewalu yàlla nga xamante ne doomu aadama bi mooy ki ko ko a sant su ko defee ñu santee ko nii waaye nag yàlla wàccewul ndoxu taw ngir mu di si lor nit ñi walla mu di si mbugal nit ñi naam bu ko defee tamit xanaa li fi nekk mooy ñu ñaan ko talal ko loxo mu daal di ñu xettali ci loraange bum ñu bu mu namm si ñun waaw ndax mooy buur bi ñu moom lu ko soob moo ñuy dal lu ko soob moo mooy am waaye amaana xëy na yàlla def ko ngir laallahum yarjiun ngir ñu war a mën a fàttale ko kawteefu yàlla ci seen bopp waaw léegi-léegi jamono buur yàlla tabaraka wa taala day jëflanteeg doomu aadama ci anam bi nga xamante ne amaana xel bi dina dellu si moom ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla génnee ci xat-xat bu ñu nekk nii yal nañu yàlla xettali yal yàlla taxaw yal na yàlla taxaw ñëpp képp ku loru ci ndox bi yal na la yàlla taxaw yal na yàlla xettali ñu yore barke ak uh, njiit gouvernement bi yan na leen yàlla may kattan ak doole ñu taxawee ñu loru ci ndox bi mbokk yi